mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ay suivre euh, Dakar Actu euh, xam ngeen ne daanaka euh, midi ba léegi jàpp 13h ñoo ngi fi nga xamante ne mooy Ocas fii ci commune bu Kaolack fii nag xam ngeen ne tey lu doy waar moo fi am ndax nag bâtiment bi nga xamante ne moo nekk suñu ginnaaw moom moo fi daanu. loolu nag tax na ba sapeur pompier ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci wàllu administration ak kilifa yi nekk ci wàllu yoon. Euh, ci suba ba léegi ñu ngi fii euh, di jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo loru ci mbir mi euh, ci xayma nag ginnaaw liggéey bi nga xamante ne sapeur pompier def nañu ko ci xayma lu toll ci ñeent doomu aadama ñoom ñoo fi ñàkk seen bakkan. lu toll ci fukk ak ñett ñoom nag lañ jot a génnee ci li nga xam ne moom mooy bâtiment bile euh, ci ñi ci faatu nag am na ci ki nga xamante ne mooy borom kër gi euh, fii ci Ocass moom mi ngi euh, tudd Mamadou Sow moom ñàkk na ci bakkanam moom ak soxnaam soxnaam boobu nag mi ngi nekkoon ñetteelam moom tamit ñàkk na ci bakkanam ba muy faatu da ci àndan da ci maanaam. moom ak doomam aussi euh, nekkoon ab liir aussi ñàkk nañ ci seen euh, bakkan am euh, keneen koo xam ne nag moom tamit xale la xale bu jigéen moom tamit ñàkk na ci bakkanam kon mbokk yi li nga xamante ne daal moo am fii ci diwaanu Kaolack ci commune bu Kaolack mu nekk tiis nekk naqar boo xamante ne bu métti la dal ci askanu Ocass dal ci askanu Kaolack Dakaractu di jëbal njaalam maanaam famille Sow bi nga xam ne moo nekk fii ci ci di ko jëbal aussi kilifa yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi euh, rawatina kilifa diine yi euh, jërë ngeen jëf mbokk yi euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaanal tamit ñi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan suñu borom xaraleen àjjana jërë ngeen jëf.